saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Baye Ndiaye mantooru Balla Gaye 2 ma xëy yëkkati ay kàddoom jébbal ko Boy Niang 2 guerre des mooyee na bu yàgg ci diggante Balla ak Boy Niang la Balla Gaye 2 woon mooy bëréewuma ak Boy Niang 2 dafa gu fi lu tax ma war a bëreeg moom Boy Niang ko ci bu bëreeg man danaa bëre bu bëreewut ak danaa bëre Baye Ndiaye mantooru Balla Gaye 2 moo xëy ci journal sunu làmb fësal kàddu yi ni mel Balla Gaye a a déjà fait son choix Balla Gaye 2 tànn adversaire yi mu war a bëreel ba noppi diggante ñeenti mbër yi di Bombardier Tapha Tine Boy Niang 2 ba ci am na ñaar ñu ca Balla Gaye tànn ngir bëreeg ñoom Ndiaye moo xam le li ni mel rax ca dolli ne Balla Gaye 2 mooy bëre mooy entraîné mooy ngemb mooy dugg ci biir géew bi moo yor cëggal gu yam mooy xool ku ko neex mu bëre ak waaye ñeent mbër yooyu di Boy Niang 2 Bombardier Tapha Tine ba ci Gris Bordeaux am na ñaar ñum ci tànn ñaar ñoo xam ne commencé naa préparer combat ak ñoom waaye duñ ko wax en ci ñeent ñooñu daal ñaar la ca lii problème bi kay mooy gisaguñu promoteur bu mën tëgg yile combat bu dee Moussa Boy Niang 2 bu bëggee moroom na ñaari mbër yooyu ñooy ay moroomam ñaar ñooñu daal kum ci jël dalañ gis combat bu neex combat ba nar a neex mooy ba idaali ñi ngi taxawal ci diggante ñagas ak caat bu waalo journal ba xam ne li amateur yi bëggoon idaali ñi ngi andi ko diggante bawal laak waalo diggante ñagas ak caat bu waalo bu ñu jàllee ca mbiri papa sow papa fësal nam naqaram ci sunu làmb père ali wax na xalaatam wax na la gis ca dàq ba ñu dàq dàq ca écurie Fass lam ca xamle mooy Fass ne digère pas le copinage Modou Lo Papa Sow Fass li leen di déranger saa yi ñu xëyee mooy ànd gi Modou ànd ak Papa xaritoo googee neexul Fass tey neexul Fass ëllëg ñoom waa Fass daal ànd googee mooy tàngal seen xol yi waaye dañoo war a xam ne li Tapha Gueye def ak Balla Gaye 2 xaaju moo gën a yées fuuf te waxuñu ko bu dee Mbaye Gueye moom yàgg naa si ngi li di ko yekk lu mel ni xeme waaye li da bu nu jàllee ca CNG ci seen commission de règlement et de ba dañ fay fekk ñetti recours yañ doon fidee diggante Tafa Mbër Aline Sey Junior diggante Xeeru Ngor ak Boy Yëmbal diggante Cheikh Super Jamono ak Cargo diggante Tafa Mbër Aline Sey Junior nangu nañ victoire ba ci Aline Sey Junior jëpp jébbal ko Tapha Mbeur ba la ba noppi déclaré Tapha Mbeur vainqueur devant Alioune Sèye Junior par 4 appuis ñu ne le 29 décembre bii ñu génn ca Iba Mar Diop Tapha Mbeur moo njëkk a daan Alioune Sèye ba jox Tapha Mbeur victoire ba ba ca topp diggante ngor 2 noonee lañ ko defee ñoom commission ba dañoo infirmer décision arbitre ya ba noppi jox xeeru ngor victoire ba bu dee diggante Cheikh Super Jamono ak Mori Cargo kase nañ verdict ñu Mori Cargo moo fa des ba arbitre ba woote jox ko victoire foofee la ñu xamle mooy la commission de règlement et discipline a cassé verdict qui déclarait Mori Cargo vainqueur ce combat est annulé mais Super Diamono a écopé d'une suspension de huit mois verdict ba ñu joxoon Mori Cargo caché nañu ko combat ba annulé nañ ko ndam amu fa waaye mbër may Cheikh Super Diamono dañoo nangu licence fii ak juróom ñetti weer du bëre première édition mémorial Pape Diaba moom it Seexu Juuf moo ko jël jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah